asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk yi comme ni ma leen ko waxee chaque vidéo bu ma ko dugalee bëgg ngeen mu am visibilité yéen a mën a aidé leneen ngeen def chaque commentaire def leen cœur def leen nice def leen drapeau Sénégal bi xam nga yéen a ngi koy gis. def leen lu leen neex ci commentaire bi aimé itam aimé leen loolu moo tax vidéo bi di am visibilité loolu moo tax ñeneen mën a gis ko loolu ngeen ma mën a dooleel man mii di maa ngi leen wax chaque vidéo gars bu leen ko teel def leen ko bu ko defee bi ma bëgg am sur YouTube ma am ko tey nag je vais parler de deux ne gis naa ne war nañ mën na ñëw équipe nationale du Sénégal pour suñu euh, ñaari jongante match euh, a ci réew mi donc ak RD Congo beneen ñu war a dem fekki Mauritanie mu nekk deux matchs yu am solo maintenant nag euh, jamono bi ne dafa am deux jours comme ñoo ngi wane seen bopp bu baax baax nekk en forme au niveau de l'attaque par rapport tey jii boo jëloon la concurrence il mérite d'être convaincu te nekk di Serif Ndiaye di doomu Medina nekk benn jour bu xam ne maa ngi doon xool depuis euh, Adana Demirspor mu duggoon 13 buts mais c'était même pas bii mu doon wër mais c'était plus son continu match bi est-ce que c'est un gars boo xamante ne capable de garder la balle c'est un c'est un pivot moderne est-ce que loolu yëpp doon naa ko xool dans son de jeu même si dama gisoon ne il était plus renard de surface mais physiquement il était quand même là saa yi bu la tegee ñaari bagaam saa yi mooy loolu et que championnat turc ñu bëri ñu koy xeeb mais y' beaucoup de internationaux yu xamante ne euh, de très bon niveau ñu dem foofu toj ñu ko donc euh, mu def prestation yooyu li ñu mel moo tax euh, Étoile de Belgrade jënd ko mu joué en Ligue des champions gis ngeen ko sax contre Manchester City maintenant jamono bi il a marqué plus de 20 buts donc pour man.

pour ñu convoquer la mon frère di diif si mais jamono bi alors on parle Iliman Ndiaye si fàlle Iliman di seet Illuminati dugal ñu bëri Boulaye Dia il est mis à l'écart maanaam dañ ko teg ne leen de l'autre côté xam nga donc du côté de Salernitana euh, Abdou Diallo du côté de Shabab donc au niveau de la concurrence à part Nicolas Jackson bi xamante ne moo ngi flambé bu baax baax franchement y de la place pour woo benn jour bu xamante ne il ans sénégalais nga tu peux faire club n'importe quel championnat boobu mën a nekk mën naa la convaincre donc bu fekkee ay critères la ñuy basé pour convaincre un attaquant jamono bi Serigne Ndiaye dañ koy convaincre et juste comme ni mu la koy wax propre à la concurrence bu fekkoon concurrence bi voilà ñooy dugal seen i bii di flambé ñu def seen triplé dama naan suñu waa ji bëgg naa la trop mais pour ñu convaincre day jëf mais jamono bi à l'heure où on parle il mérite sa chance il mérite il a 28 ans même si ce n'est pas une liste élargie de 27 à 28 joueurs, parce que des joueurs comme Bamadi, Dieng, si blessure de il ne joue pas en club, Lorient, mon Wadi Wadi, il faut le Ligue 1 française, Ligue 2, le Djem Donc, comme je l'ai dit, Kai, Younas, un peu à part Jackson, non, pour moi, il mérite sa place. Je ne sais pas si En tout cas, c'est un attaquant que j'aime bien, pivot, bon de la tête, renard de souffrance, physique, capable de garder la balle pour moi il sait tout faire même si bon sous sa vitesse y a des aspect du jeu yu voilà ku nek mais d'après ce qu'il ma il mérite sa place et je pense que je vais def le tout pour nous convaincre une salle du Sénégal l'autre joueur xam ngeen que c'est le meilleur buteur sénégalais mon donc il a claqué beaucoup de buts avec 24 25 buts donc Mbaye Diagne le meilleur buteur sénégalais xam donc confirmé ça fait xam en 2019 déjà il avait marqué 30 buts man day xawma ma mais en 2018 je je wax ci avant même

Mais c'était plus un problème de coaching avec le coach que ses, ses talents de buteur. Parce qu'il est capable de marquer des buts. Il a wane na que championnat euh, championnat Turquie loolu moo tax Galatasaray jënd ko mu jógee ko Galatasaray dem ba nekkal Turquie saa waay rajaxawaat foofu. ñu ne déet mu ñëw dem na fi à un moment donné euh, West Bromwich du côté de Premier League il te claque des têtes xam nga il avait sa place foofu noonu Premier League. donc ñu ne déet mu ñëw Arabie Saoudite équipe bii léegi deuxième division moom moo leen c'est lui je veux rien savoir donc c'est le meilleur buteur sénégalais. certes am na Sénégal yu naan non Mbaye Diagne amul bëri bii gars yi bëri gars yi bu comme ñeneen ñi waxee ak ñun non Mbaye Diagne bu ñëwee fii dugal fii des na tàng mais su wàññi Mbaye Diagne ka wax leen dara de Sénégal bi ma ko daax dugal à part Sadio Mané bi mu la mën a liggéey maanaam dugal quoi dugal c'est un métier tu peux man tu peux avoir a dugal mon frère je préfère avoir ki xamante ne il te craque les buts à un moment donné c'est ça quoi xamante euh, il faut être efficace

loolu man bokk naa si ñooñu quoi ñu xam ne damay tabax beneen génération pour 2026 mais match yi nii c' est des matchs yu xamante ne on a besoin de joueurs performants on est en fin de saison joueurs yi ñëpp a sonn ku nekk yaa ngi xaar seen vacances des médias bu ñëwee il sera super super méga motivé super méga motivé day bëgg démontrer quelque chose je pense que yaa ko def interview di jooy avant ça gis nañu Aliou Cissé naka saa yi maa ngi lay bàyyi xel montre toi dugal ay bi naa la convaincre bu dugal bi yu bëri war a dem ko def rek convaincre donc Aliou li nga ko waxoon dafa maintenant def naa temps yi passé nee na man jotaguma ak euh, Aliou Cissé bay jooy donc il mérite sa place en équipe nationale du Sénégal pour man jamono bi comme que c'est les meilleurs buteurs sénégalais il faut mérite ne aussi mu ñu convaincre donc ñaari joueurs yi daal laa amoon andi ko pour bàyyi leen ci commentaire bi aussi ngeen wax seen xalaat par rapport euh, ci Serigne Ndiaye euh, ak seen xalaat ci bay Diagne noonu leen gisee est-ce qu'il mérite d'être convoqué ou pas ci commentaire wax leen ko donc yi ñu nëggoon vidéo bi wax leen